jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan te jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people eh, di nuyu suñu kilifa diine ak sunu kilifa aday di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi sunu borom dolli jàmm eh, di ñaan màggal gi nga xamante ni moom lañ dëgmal yàlla nañu suñu borom may jàmm ak salaam ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm. di waxaat chauffeur yi ak ah ñiy dawal nañu def ndànk daw ndànk dal ndànk te xam ni yoon bi moom wax dëgg yàlla jërul njëkkante liggéeyal sëñ moom lu ñu waay def rek Ah, na ko def ci dal ak ci tey ñu ngi ñaan yàlla sunu borom dem ci jàmm ñëw ci jàmm tey nag ma ñëw sama kër ma ñëwaat sax sama kër laay wax muy place Mame Ndiaye Savon nekk sama xarit di sama nawle wax dëgg yàlla ma bëgg ko lool mu raw ma lool ba àdduna bi yëpp xam ko seet si nag koo xam ne it kenn dootu ko présenté bi mu ñëwee damay wax ne yàqul dara ci liggéey bi wax dëgg yàlla tey zaal euh, des fois bari na ci lu bari loo xam ne sax ñun duñ jote ci maam dañ naan ko zaal mu ne eh, waaye lu ci bari daal daanaka moom day jàpp ci liggéey bi yàqu ko benn yoon franchement euh, moom lañ dalal fii ci People 221 Zal ñu ngi lay nuyu. ngi lay fay di la ziar guy bu baax a baax nuyu ñi may seetaan di di nuyu kilifa di nekk kilifa aada yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. di nuyu ñëpp daal di ma seetaan ñi nga xam ne sama fant yi may bëggee di ma ci toroo maa ngi leen nuyu ñëpp di sama xarit bi nga xam da nga ñàkk ñaan kenn du yow. macha allah. Mhm. Zal tey tey dama bëgg dama bëgg dama bëgg nit ñi xam kan mooy vrai Zal parce que keroog génn nga foo xamante ne. bett na ñu bari ñu bari xamuñu woon ni Zal géwël la ñëpp dañu yaakaaroon ni Zal. dafa topp maam rek ci ambiance bi euh, keroog nga génn foo xamante ni ñu bari dañ ni est-ce que kii Zal la kan mooy Zal exact waa xam nga Zal moom defe naa kenn dootu ko werante Zal ñu ko xam tey ñoo koy laajte mais ñu ko xam démb du ñu laaj kuy Zal Mbaye ndax Zal mbay defe naa tubarkaal day nit ki nga xam ne nit ko yàlla baaxal la ba pare day doomu géwél. Mhm. jot ci askanu ma judd ci géwél yaru ci màgg ci ba fi ma toog kon tey ji loolu ma def barki démb bett nañu bari nag waaye am na ñoo xam ne du leen bett ndax xam nañ Zale mbay bu yàgg macha allah man damay doomu géwél bokk fu baax bokk jëriñ ngoo nekk maaloo be sàmba ku li gis ndaat gi laa dëkk. fi ma dëkk ala baa doolo coma juddu macha allah. waaw damay doomu géwél nag. Euh, pourquoi Sall des fois tamit duñ ko gis ci yenn ci yenn ci yenn programme yi comme des fois ni ñu koy gisee ci yenn géwél yi. Euh, pourquoi Sall des fois doo ko yi. waaw yenn événement yi ma ci gis mooy man damay ni nga xam ne damay doomu géwél waaye géwélu noobul laa man fu ma wowul du ma ci dem. te xam nga dama yor liggéeyu jàmbur te liggéeyu jàmbur boo ko yoree moo a toog sa bopp ku mu fu ma waay woowul tamit doo ma fa gis programme yu bari yi nga may gis dama ci dama ci dañ ma ci dul woo ma ci woowee dañ may gis waaye bu ma ci woowul kenn du ma ci gis du ma dem foo xam ne dañ may xoxatal waaye dañ may def naka su dul noonu man fu ma dem fu ne invitation moo ma fay yóbbu. Zal taxawaayu géwal ak géeram. waa diggante géwél ak géer moom defe naa li Papa Diouf wax rek la ndax géer moom géer da ngay mën sa géwél te Pape Diop dafa ne teral ma woddu ma foo jëm yóbbu ma géer nag bu ko defalee géwél jaamam wàcc na mhm. géer day mën géwélam waaye géwél it day mën géeram macha allah noonu la demee. Mhm. yaa ngi koy wax léegi ñu gis zaal ci diiñ bi. Mhm. Ah, ak ci am classe bi ak ci am personnalité bi par rapport ak xale yi léegi nga xam ne dañu ñëw ci aar bi yàq ko dañuy dem ci xew yi di xëccoo ay micro. wala di dem di sol yu bon ba géer yi àndal sax dañu leen di xeeb est-ce que loolu noonu taxawaayu Griot la. waaye nga lu waay doon nu mu dëgër. waaye lu waay forme wadd ñooñu la plupart du ay géwél ay géewaloo lañu. géewaloo xam nga géwél dafa am géewaloo am. Mhm. am na ñoo xam ne tey jii yaa ngi leen ñu taxaw ci écran yi di wax lu rey nga ne ay géwél lañu boo xoolee ba xool ay pula fuuta lañu. barke nuntu bi boo xoolee ba xool ay làkkat yoo xam ne la ci réew mi boo xoolee seen i maam raxuñu ay géwél. waaw bokkuñu ci géwél. Mhm. ñooñu nag ñoo dem di yàq programme mu jàmbur yi. Mhm. te defe naa ñooñu du leen woo gis nga buñ la woowee ci programme fay la. boo fa demee da ngay boole fulla ak fayda xam ne dañ la woo mais buñ la woowul ci programme boo demee faaw ngay bëgg junne yi ñuy maye ñaari junne yi maye te mayuñu la ko faaw looloo waral ñoom ñuy def noonu te ay géwél ay géwaloo la ñu moo tax géwél ak géwal géwaloo duñu benn macha allah noonu la demee nag d'accord am na solo euh, ma ñëw ci li nga xamante nag moo waral coow li muy muy magale bi euh, ñu ci nuyu bu baax a baax Mame Bassine Thiam nga xam ne moom tamit bi mu ñëwee wax dëgg yàlla yàqul uuf nay rakkam uuf nay magam euh, cër bi nga xamante ne Mame Bassine Thiam jël na ko jox ko Mame Ndiaye muy ndayele bi sa jàngat ci loolu waaw dama koo rafetlu ndax xamal tax ma rafetlu ko ndax maam Bassine deful lu gën a rafet loolu loolu gën ko rafet amul njariñ ndax maam maam njaay ak Ndeya danoo jote woon yàlla dogal nag ñu juboo maam Bassine jël te defe li ma ko wax barki démb rek Malick Koumba Diop te gën fara lamb li ma ko wax barki démb nee naa ko lépp yaa ko tëgg sama waa ji moo tëgg lépp nag te tëgg ko ci lu rafet nag tëgg ko ci dara hypocrite mm-hmm. tëgg ko ci lu rafet ak fulla ak fayda mm-hmm. def déplacement keroog bi ñu joxe ndayaa waru gari moo ànd ak ndayaa indi ko man mi maa nangu waru gari man mi maa nangu magale bi jour boobu mm-hmm. mu def lu rafet geste bu rafet boo xam ne. Mhm. man dama koo lu moo waral keroog ma ñëwee yéene. Mhm. macha allah noonu la demee ma baasin kontaan naa ci moom. dañu fa yàlla. Mhm. mu mel ni loolu sax xaw na taxal tamit diggante Ndeya ak maam Ndiaye. waaw loolu day gën a taxal xam nga ne loolu geste bu rafet boobu loolu maam baasin woy gim ci am fay gim ci am sama xamul nu muy tool ñaar ñu jote nga yëkkati euh, magale bi daal di koy jox xam jote lool. mu bàyyi lépp bàyyi mu sedd def déplacement ñëw ci xewam loolu boobu yiw mënoo xam sax yow nu la ko yàlla di faye mm-hmm. xamu ko mm-hmm. ambaas lu rafet rek la def macha allah mm-hmm. zal ñu gis nag xew bi bëri woon na bëri woon na polémique ñu bëri doon xaar Mame Ndiaye ah, maam njaay ci ci cëfër cëfër bi Mame Ndiaye ci ambiance bi ba ci jour en time bi ñëpp di xaar maam maam ñëwul mu jur polémique bu bëri aussi tamit euh, euh, euh, ñàkk teew Mame Ndiaye ci ci presse ci ci bi mu indi ay rumeur aussi li maam wax anytime teel a xew ku ne di anytime maam jour bi muy anytime ñu teg ko sama loxo bi ñu dem wuy moo waral ñëwu ñoon ci anytime bi te dañoo guddee woonu dawaat ndax anytime bi dèjà minuit la jeex ñun bi minuit bi ñu fiy fekk na yëfi jeex na moo tax ñëwuñ te dañoo amoon euh, benn contrat boo xam ne dañoo jëloon xaalisu jàmbur ñu demoon liggéey rek comme ñun ci liggéey rek la ñuy dox mm-hmm. looloo waroon ñu bàyyi anytime bi anytime bi safewul xew mee safewoon li safe maam def na ko ñu bari di ko classe foofu sax naan dafa fonkul bés bi moo tax mu ñëwul ci NTM bi dem na ci ay tànn biir et tout ça. tànn bi dañ koo fay tànn biir bi dañoo yëkkati yu bari fay ko mu daal dem ci tànn biir bi NTM bu fa ñëwoon moom moo cay dee loolu du problème loolu kay defe naa jarul wax ñëwul ci any bi ñëw na ci xew mi teel a ñëw ci xew mi def fa fulla ak fayda gi mu fa war a def def yëppi magale dem yoonam kay loolu moom moo ëpp sens defe naa ay any mhm. ñu ngi sax kii di Pendo biñ ko laajee dani moom ah, moom de bàyyiwul xel ñëwu keneen moom ñëwam la ñoom moom moo ko concerné mhm. mu mel ni ñàkk ñëw Mame Ndiaye ci any boobu xaw na soke ñu bari aussi waaw waru soke kenn nag xam nga waru soke kenn fii ñu ku nekk da xool la arrangé nga di ko def maam defe naa ñëw ci any bi arrangé wu ko moo tax dafa gis leneen lu ko gënal any time bi mu dem ca noonu rek la demee ndax fii ku ci ne li nga arrangé rek ngay def maam mënuñu koo fay ay junni yu baree bare baree bare muy dagg junni ya di dem enetaayam loolu du ko def loolu bu ko doon def saman ko nangu man mhm. du ma ko bàyyi ci loolu kon dafa demoon liggéey ci jour dafa demoon liggéey dañ koo fayoon xaas bu bari bu demoon liggéey mhm. Mhm. Ilimaan la moo ko fayoon xaalis bu bari bu demoon liggéey. d'accord mënul liggéey bi dem ci yeneen taay. loolu mënul ne. Zal ñu ñëw ci xew bi. Zal dugg si dugg si Mame Ndiaye. ànd ak Zal Zal bi nga dugg see waxuma bala maa ñëw ci ndawtal yeeg yooyu saal bi nga dugg see. ñaxtu xepp lan nga yëg bi nga ànd ak maam. waaw kontaan xam nga boo àndee ak gaynde te mu leer na la ki nga àndal gaynde la da ngay defi fi gaynde defi gaynde rek lañ defoon jour boobu noonu ma kontaan rek xam ne ki ma àndal gaynde dafiy toj tey jii xam nga boo demee fenn mu leer na le fa ngay dem yaa ngi fay waaja a toj te mu leer na le boo fa demee da nga koy toj da ngay ànd ak xol bu sedd ànd ak xel bu dal ànd ak cawarte looloo ma daloon ma ñëw ci ci ci ci ci ci ci ndawtal yi mm-hmm. avant may joxe avant ñi ñëw ci ci joxe bi ñu bari xawoon na seetlu nii ñii dañoo ñëwoon pour defante wala ñii dañoo ñëwoon pour pour ay commentaire daal dañoo ñëwoon pour defante naka nga jàngatee wax jooju waa man nag sama mbokk géwél laay wax fu foofu noonu gis nga nit li ma wax rek bul bëggati géer ba wuti ko géwél bul bëggati géer ba wuti ko na la géer ga bëgg nga téye ko yaa ngi dégg ndax géwél day am daam am place géeram waaye géer tamit dafa am place su géwél gis nit da ngay diiñ géwél dangay ngay diiñ doon géwél taxul a ñàkk jom bu la nit may ba pare di la jéppi lu waral wax jooju li waral wax jooju mooy keroog li ma fa gis man damaa tiit comme ndax géwél yi ku ne di sorko sorko waaye yow Zal Mbaye géwél mën naa ànd ak Maam Ndiaye Savon mu yëkkati li muy jox ndayaa teg ko ci loxoom bi fii la ñu départ ci place bi géwél yaakaar nañu maam Ndiaye day tegg Zal Mbaye tëb Zal Mbaye daal di leen jox dawtal li ñu joxal ko maam Ndiaye xanaa na kon maam Ndiaye li muy woote ci digganteem ak Zal Mbaye nekkul. Mhm. te Zal Mbaye di géwél. géwél du ku ne di ngaf ngafi nanu bàyyi ngaf ngafi ba loolu baaxul. kon dama jàpp ni dañ la bëggoon a siif. waaye man kenn du ma siif ndax xamoo tax man xamoo tax ken du ma siif damaa judd ci géwél yaru ci màgg ci fa tubaarkàlla ajortu may mun a si di sama yaay alaaji Abdoulaye Mbaye di sama baay ma dëkk ndaat gi dëkk euh, doon sa tujéeri ngoo nekk maaloo ba sàmba ku ma siif ku ne balaa nga maa siif ma siif la mhm. loolu yàlla doo ko ne man kenn du ma siif sax mhm. ndax man defe naa am naa kàddu goo xam ne bu ma ne dama ne ñëppay déglu loolu yàlla dogal na ko. Mhm. kenn du ma siif du ma ko nangu sax. nangu ma di sal jël micro bi nii bul bëggati géer na la géer ba xamu noo ko ci waxee noonu. ma ne bul bëggati géer ba wuti ko na la géer nga bëgg nga téye ko. lu waral wax jooju. mooy ne nga bëgg buur buur bëgg laa ko gën. nga bëgg géer géer bëgg laa ko gën man maam njaay géer la moom moo ma bëggal boppam moo ma choisiral boppam. xam nga d'une part man employé laa ci ci fii ci bërëb bi ma ne nii. maam bu ko neexoon bu muy dem a ah, ñàkkul ay géwél de waaye bu ko neexoon bu muy dem. ànd ak woo ay géwél ci koñ bi fii ay géwélu juddoom man du ma géwélu juddu maam de waaye bu ko neexoon woo ay géwélu juddoom ne leen ka ànd ak man. waaye ma dama koo doy daf ma bëgg moo tax ma ne bul bëggati géer ba wuti ko ba nu fa demee fekk nañ fay géwél bu ko neexoon ne ma zaal ma ne ko ah mu ne ma li la joxoon kat delloo ma ko damaa bëgg diw mi joxeel ma te boobaay du ma ci wax dara waaye defut li ni mel. dafa jël ndawtal lool mu yëkkati 200000 teg sama loxo xeeb xeebu ma bu ma xeeboon du ma jox 200000 te xam ne la nekk ci géwél maa ci gën a jël ko jox ma moo tax ma ne bul bëggati géer ba wuti ko na la géer nga bëgg beneen sens ñu gis yaag femme boobu yéen ngi yéen a ngi yéen a yéen a ngi weccoonte ay kaddu. comme si que daal euh, affaire affaire affaire affaire maanaam comme face to face yaag yaag ndaw soosu qu'est-ce qui se passe. du face to face damaa wax fi ma bokk rek mu wax fi ma bokk. xam nga ñun ñëpp ku ci ne da nga am foo bokk damaa wax fi ma bokk dama wax li tax li waral ma jël micro bi di wax man bëgg a wax taxumaa wax mën a wax du moo ma tax wax war a wax moo ma tax a di wax bëgg a wax taxumaa wax de mën a wax du moom moo ma wax bu war a wax moo ma tax wax ndax dama bokk ci jéeri ngoone war a wax loolu man su ma waxul lu ne dañ may laaj lu tax waxoo yaa ngi dégg loola waral ma wax fi ma bokk moom mu wax fi ma bokk Zal ñi ñëw ci deux 200000 yi. Euh, ñu bari tamit yenn sénégalais yi teg ay critique ni maam Ndiaye ak ni mel maam Ndiaye ak bës bi ni mu rëyee ak bés bi niñ ko niñ ko magalee maam waroon na faa def leneen lu gën a rëy ko loolu ñu daal naan maam daal dafa daf lam def daal wax dëgg yàlla waroon naa waroon naa mën a dépasser loolu. 200000 sa force xam nga tax sa 200000 sa force ndeyaa dafa ñëw jox maam 20000 magale 20000 bu ne 100000 la. 20000 euh, bu ne. 100000 la ñun ay géwél la ñun yàgg nañu taxaw géew aw ma 100 waaye taxaw na 100 géew. mais sax loolu faw nga ni jaay leer man mi maa ngi doog a xam. Ndeya dafa ñëw ànd ak maam Baasim Thiam keroog 20 000 yoo sama loxo bi lañ ko teg jox ko tàng paquetu tàngal magale jox ko 20 000 francs magale. Sénégalais yi téeméer lay la lu waral 200000. voilà 200000 lu ko waral 50 10 euh, mille bu nekk 100000 la ñaari 10 mille kay xanaa ñaari 100000 la muy 200000 waaw maam bu deful 200000 lu muy def leneen. magale ñu jox ko vingt mille cër dañ ko jox jox ko vingt mille ak paquetu tàngal cinq euh, dix mille bu nekk cent mille la. looloo waral deux cent mille moo waral deux cent mille. d' accord looloo waral deux cent bu fekkoon ne ndeyaa tey ji magalewul maam maam day dem dawtal ko lu ko neex waaye du koo jox cër jox ko fukk jox ko ñeenti junni tubaab di ko wax vingt mille ñeenti junni yi deux cent mille mooy fay bi. d' accord la demee 200000 li ko waral mooy 20000 la ko ndeyaa jox magale te ay géwél la ñu nag. xam tamit dafa baax nga leeral ko. parce que ñu bari ñu naan maam waaw maam ni mel tey mu ñëw ci bés bu toll ni maye fa 200000 mu mu tëjoon bopp ñu bari aussi. mayewul 200000 de maam wul mayewul 200000 dama ne maam ndeyaa da koo jox 20000 20000 200000 mooy fay ba moo waral maam indi 200000. Hmm. te jii bu doon bu doon bu doon ndeyaa indiwul ko dara maam day dem ak asaka yéeneen. waaye comme da ko indil vingt mille te ñaari junne bu nekk cent mille la lu ma la xam naa ko ñaari junne bu nekk cent mille la ndayaa bu ko joxoon te ji trente mille maam day indi tey jii trois cent mille trois cent bi nga joxee deux cent mille yi euh, maam Basse tamit yëkkatiwaat teraaga dellowaat leen ko jël ci li nga xam ne euh, maam joxe na ko mayaat la ci Zal foofu sénégalais yu bari nii lii lii jokkalante géew la loolu mooy jokkalante géew xam nga loolu géer mënu koo xam loolu géer pour mu xam ko sax géer bu géer bu ngéwél la doo nga ko mën a xam loolu day ubbi sénégalais seen bopp ñu bari waaye loolu tey ji boo ko laajoon maam Bathie danaa la loolu jarta ndax loolu jokkalante la damaa jàkkaarloog nday fëri maam Bathie yónni ko ndax maam Bathie laa waroon jàkkaar lool waaye ku ne xam na ne ci li mu jóge xolam neexul mu yónni nday fëri ma jàkkaarloog nday fëri jox ko deux tey jii ku ci ne da nga ànd ak sa géwél ndeyaa dafa teg géwélam muy Mame Bassine Thiam Mame Bassine Thiam mënul nos mënul nocc mu yónni ndey fëri Mame Bassine Zal Mbaye la yónni tey jii boo yónnee sa géwél ah tubaarkàlla yónni sa géwél ci géer géer ga day yónni géwélam mu ñëwaat ci géwél gi géwél bi yónnee moom it day dafa am ñu jàkkaarloog moom jokkalante géew léegi ñu doon wax naan loolu defante la mhm. dañ leen a bëggoon ne li ngeen fi indi tamit fekk ngeen fi lu ko raw. non non non loolu ñu xamul ñooy la wax defante la waaye maam Bassine Thiam xam na li mu def noonu noonu rek la ko war a defee te noonu rek la war a demee nag ndax maam Bassine Thiam géwél la xam na li mu war a def noonu rek la war a demee. maam jëlaat xaalis bi ñu la mayoon mayewaat ko. ni mu jëlaat xaalis bi ma mayoon mayewaat ko ndax géwél yooyu ko war nag sonal ko faa ma may leen man tey. Eh, Zal Zal Zal Zal Zal Sénégalais yi nee nañ non maam maam gaynde la maam maam maam maam bëggul defet maam moo tax mu jëlaat xaalis boobu maye ko ñu naan tisi sax maam xam naa bu ko mënoon a maye dina ko maye waat non non maam loolu mu maye noono waru ko woon sax maye waaye xam nga comme géwél yi taxaw nañ ku ne naan ko ndokkale te maam gaynde la na mu yëkkati fukk junni yooyu daal di ko may géwéli man bi ma ñëwee rek maam cent mille ma may mhm. man bi ma ñëwee rek man mi nga xam ne may géwélam bi ma ñëwee rek cent mille la ma may teewul yooyu ma kii joxoon ma maam Bassine Thiam joxoon ma ba ma koo jox deux cent mille deux cent mille bu ne ci teqat ñaari junni daal di may may deux cent cent mille bu ne ci teqat ñaari junni daal di may may muy vingt mille mhm. maam bi ma ñëwee daf ma may cent mille vingt yi ma maam ba sin joxoon moo waral jokkale bi daf ma koo joxaat moom maam mi mhm. cent vingt mille sama loxo misaal kon yooyu yëpp yéen a ngi koy dund ci xew bi te te nit ñi xamuñu aussi non xam nga sénégalais duñu comprendre sénégalais pour ñu am vie lu nekk la ñuy wax mhm. waaye yëfi sëmb la la ko mën na ga ca biir ñun ay géwél lañ ñun ak ñoom maam Bassine xamante nañ yàgg nañoo daje ci géew yi yàgg nañoo jokkalante mhm. man aw ma santaa li ma la wax waaye taxaw naa saa géew géer géwél mënu maa nax mhm. dama bokk ci askanu ngéwél bokk ci ngéwél gu mag a mag mag mhm. moo waral na kenn mënu maa nax Zal après xew bi Zal coow li <laughs> Zal bës bi Zal dégg naa sax xaw na cee feebar Zal coow li bës bi après commentaire yi critique yi waaw mais xam nga commentaire mënut ta ñàkk ndax moos kuy def lu ke kuy def lu baax sax dañ lay commentaire asuma koo xam ne da nga demoon ci xew lépp la ñuy commentaire réew mi commentaire mënu fee ñàkk ndax moog liggéey bi ñoo ànd. Mhm. li ñuy def internet bi moo commentaire ñoo ànd man ba ñu ma commentaire. am na ci loo xam ne nag xam naa xam naa nag dina xaw a xaw a wax la ko yenn commentaire yi ni Zal. Mhm. maam dafa jot wax ak moom parce que Zal ni muy joxe ni muy biiñoo ni muy def loxo yi. Mhm. Sénégalais yu bari di la critiquer ci côté boobu aussi tamit lan nga leen di wax. waaw ñi may critiquer ci côté boobu noonu wax man du ma leen faale xam nga du ma leen faale. mooy ku nekk tey ji ni la yàlla bindee rek noonu ngay waxee. nit du tricher nit da ngay man Zale Mbaye dama naturel. Mhm. du ma tricher benn yoon ni ma mën a waxee rek noonu laay waxee ni ma mën a doxee noonu laay doxee ni ma mën a jëfee noonu rek laay jëfee. Mhm. ku ma ci bëgg bëgg ma ci ku ma ci bëggul loolu yow la. Mhm. man lijjantiwuma ku ma ci bëggul ndax fii ku ci ne am nga loo doy mbubb ak tubéy. réew mi ñu ne ku ne am nga loo doy mbubb ak tubéy loo xam ne boo ko waxee. dootal kaawu keneen bay tal Zale Mbaye et pourtant tamit yàgg nañoo gis ay yenn événement yenn géwël yi taxaw di wax. di def yëf yooyu mais pourquoi ñu citer Zale Mbaye rek ni moom pourquoi muy def lii tamit chaque événement bu amee ay ndaw la ay ndawtal ay nday la yooyu ba ci bërgi démb rek ah, gis nañ ko ci yenn xew yi mais pourquoi ñu cité Zal Mbaye waaw Zal Mbaye koy cité xam nga dañu koy cité oto bi ci kanam rek la ñuy corné fii boo tojul kenn du la quitté kenn du la critiqué defe naa tey jii su ma kenn xamaloon kenn du ma critiqué ah li ma réew mi xamaa tax du critiqué te critiqué mën taa ñaak mm-hmm. ndax ku ñu waxul ci yow sax defe naa prouvé woo dara mm-hmm. Zal Mbaye daaw ci heure bi kenn xamu ko kenn waxul ci moom boobu prouvé wu mm-hmm. waaye ren ci heure bi ma prouvé taxaw fi ma war a taxaw ànd ak maam Ndiaye Savon mi nga xam ne gaynde la faa ñu critiqué ma nag mën ta ñàkk mhm. man assumé naa loolu ragaluma ma loolu mhm. Mhm. mais daal keroog loo jël jëluma dara dara tu géwél rek moo ma yëngal ndax nag boo ànd ak sa géer mu yëkkati yëpp dox la da nga ko war a waxal loo xam ne wax kenn waxalu ko ko ci àddina looloo tax waaye yëlu ma dara ma dara rek moo yëngu zal keroog dafa mel ni maam mayoo ko dara parce que benn sens maa ngi gis mhm. maam a ngi tàng sax taxaw mais yaa ngi jël yaa yaa ngi yaa yaa ngi jël morceau di ko fomp mhm. comme si que maam euh, zal tey dafa ñëw aj maam def ko grandeur maam nag kaay faa ma nag ndax nag maajul kan laay aj man suma ma wul maam kan laay valoriser mm. ki tax ngay tax te musul taxaw na yaa tax may tax boo goree ne ko yaa tax may tax nag mm. bu ma ko ajul ma ko valoriser wul kan laay valoriser mm-hmm. bu ma ko valorisé wul ku ma valoriser safewul mhm. ndax bu ma àdduna xamee à cause de Mame Ndiaye mhm. dama koy teg fu ma tegul kenn mhm. Mame Ndiaye tey ji bu ne ma woon sëggal foral ma sama daal ma sëggal foral ko daal la tey jii lu ma xam ne bëgg na ko balaa koo balaa ma ko balaa ma koo demandé sama indil ko ko loolu mooy sama droit ak moom loolooy sama devoir ndax daf maa génne publicité ma génne ma ci réew mi ñëpp xam bu ma ñëpp xamee wala ñëpp bëgg ma à cause de ma am na solo tey ndeya du ñàkk message yoo xam ne di nga ko lancé xale wi doog a dugg ci néegu sëy ak milieu bi ni mu demee kirti gi coow yi lan nga koy conseil waaw ndoyaa moom li ma koy conseil mu muñ te xam ne sëy dafa naqadi te du benn fan du ñaari fan dafa nekk la nga xam dafa sensible day muñ rek tey euh, gumba taxluur léttu dégguma ndax boo dee sëy di sëy ak ay maabo faaw nga dégg sëy famille pend gise faaw mu dégg dégg mooy faaw mu dégg mooy dafa fi mu bokk fi mu fi mu dugg la fi mu dugg faa mu dégg ndax xamata faa mu dégg dina dégg lu nekk ndax ñoom ñoo bindoo noonu ñoom ñoo bindoo noonu moo tax faa mu dégg nag faa mu tam xam mu wàttu dégguma mu mu lijjanti dara mu xam ne sëy dafa metti jëkkër ji ma koy conseil ne ko da nga am jëkk jabar joo xam dafa siiw te sëy ku siiw dafa metti te siiw du jàmme borom parfois journal yéen ñii parfois ngeen def yoo xam ne non yéen ñëpp ñëpp parfois ngeen bindu yoo xam ne tey jii jëkkër ji mën na ci gis boppam te en cas sax demewut noonu moo tax jëkkër ji dama koy wax mu mu réeram jabaram mu jabaram lu mu dégg ci jabaram bu ko gisul bu mu réagir ndeyaa tamit lu mu dégg ci jëkkëram bu ko gisul bu mu réagir ndeyaa sama jëkkëram dèjà xamuñu ko sax nag moom moom pour mu def erreur sax day met waaye ndeyaa mi ñëpp xam na ko jëkkëram mu ñal suturaal ko xam ne sëy dafa métti zal jox jaay ma noo suñu logo bi nu mu tuddati. jaay ma kal soo ma nëbb sama cër. waaw waaw kal soo ma nëbb sama cër moom moo ngi fi ba tey rek. comme mhm. nag euh, fan yi internet bi dañoo tojoon te tiktok bi. waaw demewul noonu ñun ñëpp jaayuñu. Macky Sall nu ñu dimbali tijji yëf ñu jaay nag sonn nañ nag man gëj naa jaay ma dama doon direct am ay ay 3000 personnes. léegi ma direct ay trois cent personnes la loolu baaxul makki dimbali ñu jaay man jaay ma papa sama rakk jee moom tamit jaay maam Ndiaye day direct ba daal live bi di wàcc di wàcc rek loolu macha allah kontaan maa la gën a kontaan sama xarit bi ak cant ak ngërëm sant rek di santaat rek euh, di nuyu ñi ma bëgg ñi nga xam dañ ma bëgg di ma safoo ndax nag kenn ki bëgg jar na daw ba dee man da boo gisee découragé ma ba léegi ñi ma bëgg la waaye ma damay dégg commentaire bu ne. Mm-hmm. ñi ma bëgg rek ñoo ma bàyyi ci aar bi ma nekk ba tey jii. billaahi wallaahi wa taala mm-hmm. da ngay gis ku ma bëgg sax ndeysaan di ma ñaan di ma woo di ma ñaan di ma conseil te xaw ma ko ñu yëkkat seen alal di ma ko teral te xaw ma ko mm-hmm. yaa ngi dégg di ci gërëm madame tamit euh, madame Mbacke barki démb dama def vidéo rek ambiance mu yëkkati xaalis bu bari na ma ne aw ma paasu bu ma Elisa borom buur tamit yëkkati xaalis bu bari ma nit ñooñu te musuma leen a gis ah musuma leen gis xaw ma leen mhm. xamuñu ma ci internet bi ma xamee macha yi nga xam ne ñoom laa fi mhm. nag di nuyu sama mag di jaar mhm. ñëpp di kontaan macha allah guy gi di am na solo moom laa da moom laa daraloon fii jaajëfal di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf